sët sa taalibe def nanu raw na mu doon def waaye dafa waxat ni bi nuy ñëw addiye ji mu indi ak i bokkam lim jëkk ñaan yoolab addi yi na doon sa gudd fan gu ànd ak wér Abdou Aziz a ngi nii Alaaji Aale Njaay baayam aale ma jigéen ma nga xam ni yéen a bokk néegam ndey mooy maamam moo jóge woon ba dàq wen nag yóbbul ko sey jaaj alaaji aale de ko def ca Seydi Boubacar doon ko def ca kër Serigne Fallou sa mag ju baax ja aale bàyyeegut Abdou Aziz ànd ak rakkam ji di bàyyi aale ak xaritam yii ak soppeem yii ma sata maga magi ngi nii di taw alaaji aale sa sët Balla Gaye 2 ma nga ne ak Balla Bey 2 Abdou Aziz dama koy tënk Abdou Aziz jëf ju taaru ji muy jëf dama ko nii lii ngay def te di ko def bëccëg di fekki sa sëriñ sa maam nga xam ni moo toog di sëriñ Touba di Mamadul Basiir nga sarse ab oto def ci ay nag def ci macaroni def ci diwlin def ci mi vermicelle lépp loo xam ne ci àddina bu ñuy def sant gii sa sa maam ju baax di noonu bu yëg seen nañ sant suñu borom Abdoulaye sa set bi indi na ko sëriñ bi nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mu ngi ñaanal nii mu koy defee nag bu màggal ñëwee kenn ku ne xam na ne Aly Ndiaye ku jur sëñ Babacar la toppoon waaye daf ne maam maaram kenn la kon màggal ak sama gi bu ñëwee yàlla sunu borom dimbali ma ma fekke sama maam Serigne Mountakha Bachirou ma man koo gis danaa fexe ba kenn du ma ci man kenn du ma cëppale kon noo ngi ñaan sëriñ bi nga ñaanal sa sët bi ñaanal sa doom ji yàlla may ko fan wu gudd ak rakkam jii di bàyyi Aly ak xaritam yi mu àndal ñii mu àndal kenn ku ci nekk sa Aziz la sa bopp la gënal Aziz Aziz la gënal sa bopp kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga gudd fan nii mu def ak it taalibe yi nekk ndakaaru te yaakaar Serigne Touba teggiwul loxoom ci benn taalibe lii mu indi ci oto camion bi sarse ko ci ay nag ak i teraanga dane bu sëñ bi jëlee li mu moom li ci des damay wër njabootam gi ak njabootu maam Serigne Touba ak seex yi kenn ku ci nekk ma santale Serigne bi yàlla moom nee na yow yaay santale maam Serigne Touba yàlla waaye moom yow lay santale yàlla sunu borom na ko ñaanal mu gudd fan ñaanal ko usines yi mu bëgg a ubbi bëgg cee liggéeyal yàlla lépp yàlla sunu borom sottal ko lii nga xam ne mooy huile Sador nga ñaan ci yoroon nga ko yàlla sunu borom barkeel ko Mbàkke nun ñëpp nag kenn ku ne na wax ci xolam ne mun Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te mu ànd ak li nga naal yàlla na ko yàggale Mbàkke Abdou Aziz li nga ma waxoon ëpp na lii Cheikh Tidiane sama dooma ngi nii doomi Alaaji seex Samb ma daa ñëw tiib ak Daaru Salaam def Euh, jërëjëf euh, sëriñ Xaadim sëriñ bi dégg na kàddu yu baax a baax sëriñ Abdoul Aziz euh, sëriñ bi dafa wax ne mu ngi sant bu baax di la xamal ne tey ji am na mbégte lool ci sa jataay bii na ko defee woon daaw noonu rek nga ko defee ren nga ànd ak say xarit say wëllëre ak say rak ngeen ñëw ci kanamam ànd ak moom ci liggéey bi sëriñ Tuubaa bii ndax sa liggéey bi rafet na lool kenn ko ne xam na ne umma islamique bépp nii ngay nii nga koy jëfee Tuubaa noonu nga koy jëfee kon nag loolu mu ngi la ciy sant ci sa taxawaay di la ñaanal suñu borom kàttanal la may la fan wu gudd ak wér ba nga gën a ma nekk ci liggéey bi mu ngi la koy ñaanal baax a baax kon na ñëpp tàll seen loxo bi muy ñëw dem na ci sëriñ Babacar ci yëgal ko ne moo incha allah ajjuma siyaar si la ñëw fi incha allah jërëjëf Mbakke yàlla nga fi yàgg ñaanal ko bu baax moom ñu ma àndal nee na nanga ko ko siyaaral bu baax ne nga nuyul ko sëriñ bi siyaareel ko ko santal ko ko baax a baax ci taxawaay bi mu ne mi ñaan suñu borom fayal ko bu baax a baax waaw